ñun wa rebeus ak wa medina ñoo bëggoon ñëw pour wax ñu dañuy jappalé dañuy jappalé président Lamine diak ci liko dal ak décision biñu jël demb man tamit wa rebeus la ma ñëw bok ci ñom pour euh, am solidarité ak mom ak pour tamit euh, wax ne ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy jappalé ñu ngi sabal di sakku nimbal suñu borom ba yalla delloo ci ko ak jàmm ak salam tay lo tax ñu dajé fi ah tout à fait euh, wa justice mom